ci ëttu yëglekaay yi si mboolem yéenekaay yu ñu daal di jot ni ki tey jii ñu door ak yéenekaay bi di le quotidien le quotidien xëy addu ci demu Ousmane Sonko foofu ca pencum ndaw réewu Sénégal mu mel ni nag jamono ji Yewwi Askan Wi dañoo daal di censurer lii di déclaration de politique général bu Ousmane Sonko waroon def foofu ca pencum ndaw réew mi sukkandiku nag ci kii di Ayib Daffé njiitalu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi mu jàpp ni nag jamono ji audition bu Ousmane Sonko mënul nekk ci lii nga xam ne nag moom mooy règlement intérieur bu nekk foofu ca pencum ndaw réew mi Walf Quotidien daal di jàpp ni nag déclaration politique générale bu Ousmane Sonko Yewwi Askan Wi daal nañu teggi yan bi moom Ousmane Sonko ndax dañoo jàpp ni nag am na lu ñu daal di ruumandaat ci boobule règlement intérieur Sud Quotidien yéen kaay ñu daal di fa fekk nataalu Ousmane Sonko ci li nga xam ni nag moom moo soxal coowal déclaration de politique générale ci quatorzième législature mu mel ni yéenekaay bi dafa daal di gisee ni nag Ousmane Sonko jamono ji nag dara tënk ko sukkandiku nag ci groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi mi jàpp ni nag jamono ji Ousmane Sonko eh, képp ku koy xaar foofu ca pencum ndaw réew mi di nga daal di xaddi point actu ne Yewwi Askan Wi dañoo daal di disqualifié maanaam ŋàññi règlement intérieur bu nekk foofu ca pencum ndaw réew mi sukkandiku nag ci article 55 constitution bu réew mi nag ñu daal di jàpp ni nag yeneen observateur nag ñoom ñu daal di bañal lii di yeewi askan wi article cinquante cinq bu constitution nga xam ni dafay wax ni Ousmane Sonko am na lii di obligation def lii di déclaration de politique général euh, foofu ci kanamu ñi nga xam ni nag ñoom ñooy député yi direct news ci boobu la coowal DPG bu Ousmane Sonko war a def ci kanamu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di député yi mu mel ni Ayib Daffé njiital groupe parlementaire Yewwi Askan Wi moom dafa daal di xotti règlement intérieur bu pencum ndaw réewu Sénégal ndax dañoo jàpp ni nag jamono dafa am lii di fraude ci boobu le règlement Les Échos yéenekaay daal di jox kàddu gi kii di Babacar Gaye mu jàpp ni nag waruñu rek sukkandiku ci ay manquements yi ñu daal di nemmeeku foofu ci ci règlement intérieur bi ba Ousmane Sonko warul dem ah, foofu ca pencum ndaw réew mi mu jàpp ni lii di déclaration politique générale dafa doon ab obligation institutionnelle te kii nga xam ne nag moom mooy njiital jëwriñ yi nag war ko sàmmonte mu jàpp ni jamono ji nag groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi waajal tamit ab tontu las quotidien yéen kay jàpp ni Ousmane Sonko jamono ji nag Yewwi Askan dal nañu ragg ginnaawam te du dem foofu ca pencum ndaw réew mi ci li nga xam ni nag moom moo soxal déclaration de politique générale yéenekaay bi daal di samp ab laaj ana lan la Ousmane Sonko di ragal dem foofu ci pencum ndaw réew mi mu mel ni nag boobule laaj la yéenekaay bi di tribune moom tamit daal di samp ni ki suba gi Ousmane Sonko lan lay ragal ci dem foofu ci pencum ndaw réew mi ci li nga xam ni nag moom moo soxal déclaration de politique générale bi njiital jëwriñ yi war a def yéenekaay bi nag daal di jàpp ni délai lu toll ci 92 jours mën na mat rek ngir am da di cohérence te ki nga xam ne nag moom di parlementaires yi source a ba léegi xëy ci boobu le mbir mu jàpp lii di mbirum dilatoire su fekkee ni ñi nga xam ne nag ñoom ñoo faree ci yeewi askan wi nanguñu nag Ousmane Sonko dem foofu ca pencum ndaw réew mi réew mi quotidien moom tamit xëy àddu ci boobule mbir déclaration de politique générale Ousmane Sonko mu mel ni dafa nar a en différé maanaam du teew foofu ca ndaw réew mi ci jamono ji sukkandiku nag ci ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy ay député yu faree nag ci majorité bi Ousmane Sonko du dem ci jamono ji foofu ca pencum ndaw réew Sénégal bés bi le jour jàpp ni Ousmane Sonko jamono ji ñi nga xam ne nag ñoom ñoo député Yewwi Askan Wi ñu ngi koy wàllu Ayib Daffé jàpp ni audition bu Ousmane Sonko ci bile règlement intérieur nag jamono ji mënul nekk ndax dañoo daal di gis ay lënt-lënt ci boobule règlement intérieur bu yees Abbas Fall daal di jàpp ni dinañ saisir Ousmane Sonko waa it ki nga xamante ni nag moom moo war a lii di décider Cheikh Omar Sy nekkoon député tey ji nag daal di nekk ci kujje gi jàpp ni lii di déclaration de politique générale moom moo war a njëkk laata nag ñuy amal lii di débat d'orientation budgétaire ci boobu boobule fànn la lii quotidien xëy daal di gis li di violation flagrante ci li nga xam ni nag mooy boobule loi daal di jox kàddu gi kii di Aliou Souaré nekkoon député mu daal di gis nag ni ñi nga xam ni nag ñoom ñooy parlementaires yi waruñu dem ci débat li soxal orientation budgétaire samedi gi te ñu bañ a laal di sàmmonte ak disposition yu article 56 bu loi atum 2020 tiré 07 l'observateur yéen kaay moom tamit xëy àdduni jamono ji yeewi askan wi nag ñu ngi taxaw tem rek ngir défendre kii nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko ci li soxal DPG déclaration de politique générale bi mu namm amal Babacar gay daal di delluwaat ci bile yéen mu jàpp ni jamono ji li war mooy sàmmonte rek ak constitution bu réew mi du du Wade tamit xëy addu ci boobu leen mbir ne groupe parlementaire yeewi askan wi am nañu nag lu toll ci ñeenti fan ngir régler rek question règlement intérieur foofu ca péncum ndaw réew mi Le Soleil yéen kaay ñu fekk fa nataalu président Bassirou Diomaye Faye mu daal àddu nag ci li nga xamante ni nag moom moo soxal politique yu yees ci industrie ak budget fii ci réewu Sénégal niki démb nag ci ndaje jëwriñ yi moom chef de l'État Bassirou jomay fay daal di euh, sàkku rek ci gouvernement bi ñu amal ab programme bu yees ci wàllum lii di tissu industriel